dali na jàmm ñu ànd xëy yër kaa ñu xëyandoo fu la mooy jaay Dakar wala ma ñam ja jeexal ko yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu ginnaaw bi Union européenne boolee Sénégal ci réew yi nga xam ne tëjël na ko ay buntam Sénégal daal di ko koy delloo loole moo taxoon waaye Union européenne sàkku waxtaan ak réewum Sénégal waxtaan wa commencé na ni ki démb waxtaan nañ waaye nag ci biir waxtaan wa dafa mel ni daal ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttale maanaam tëjal bunt bi waru leen a boole waxtaan wa ñoo ngi ko doon defee ci ministère bi ñu dénk mbirum affaires étrangères maanaam ci teewaayu Amadou Ba ak délégation Union européenne waaye nag kenn ku nekk wane na na jamono ji maanaam soxla na sa morom journal bi nee na waa ministère bi ñu dénk mbirum affaires étrangères ci Sénégal ak ministère bi ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi ci jaww ji maanaam danañu bind nag ay document jébbal ko waa Union européenne maanaam document yoo xam ne dafay wane ne Sénégal jël na ay matukaayam ci lépp loo xam ne maanaam jëm na ci wàllu wér gi yaram gi waxtaan wa maanaam ci good fine la ñu ko doon defee ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ci la ñuy yeggale waxtaan waa yéenekaay gii di réew mi quotidien moo xëy di ñu nettali waxtaan waa kan nan la demee kan nan la tëddee yéenekaay gii di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu li amba ba des kay mooy Sénégal jamono ji ma ngi giita ngaas ak ñi nga xam ne maanaam ñooy waa Union européenne maanaam fulaak fayda dëgg la Sénégal wane ci mbir mi yéenekaay gii de la Tribune ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo lu mu yëkkul Macky Sall daf ko fàtte yàkk na ko musiba ak mbelengaan daan nay wax ne Macky Sall bu paase cuuna géeg télé géeg yaafus gi nga xam ne maanaam wane gi nu Sénégal am ci moom Macky Sall ci boppam moo bëggul ay waxtaan maanaam ay débat contradictoire kii wax jox sa morom kii na ko nii laa ko gisee kii na ko naa laa ko gisee loolee Macky Sall bëgg ko dafay bëgg rek di ñaaj di jàll yéen kaay gi de la turbine wax na ci entourage su Macky Sall bi nga xam ne maanaam bëri na si ñoom ñoo xam ne def nañu fi ay tojaange yoo xam ne maanaam koo xam ne saxel dem na ci rek mën nga leen a jéppi ndax bu passé Moustapha Cissé Lo saaga yu rëy yi nga xam ne maanaam saaga na ko ci réew mi Souleymane Jules Diop ñëpp déggoon nañu kàddoom yu yi nga xam ne yàgg na koo yëkkati ci réew mi ministre Moustapha Diop maanaam fii la daggal ay saaga ay magistrat Youssou Touré ay kàddum dégg nañ ko fii ba si Mbaye ci la journal bi dikk ñi jege Macky Sall tojaange yi nga xam ne maanaam moom lañu leen xamee journal bi xëy tënk kàddu yëpp na régime mu Macky bi ci boppam bëri na ay sénégalais yoo xam ne maanaam dañ see am mbetteel dañu see am gàcca yéen kaay gi de xëy fekk fa Aminata Touré la mu a jële ne yenn ci ay statut dañu ko war a jële ci réew mi yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy ci coowal kéwal yi nga xam ne mooy jàba jónge ci réew mi ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn dafa am ay kéwél yoo xam ne dañu ko jële woon raneru ay guddee guddee andi ko ndakaaru am na si sax ay kéwal yoo xamante ni damm-damm yu metti lañu ñu damm ba mujj faatu journal bi nee na ndeke kéwal yooyee ministre Abdou Karim Sall mi ñu dénk mbirum environnement moo ko moom te Abdou Karim Sall ndeke ab la am maanaam ab parc journal bi nee na ki xam ne moo ko yoral accompagné ak direction des parcs nationaux journal bi nag nee na conflit d'intérêt foofee la yem journal bii di la témoin ñu fekk fa Adama Gaye la mu xamle nee na ministre Abdou Karim Sall maanaam danger te te ñu ko war a teg loxo ndax mbirum wëy yokk mbirum samb Soura Bali la def ci mbir mi yéen kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa Bara Gaye directeur général bu meson de la presse daan nay xëy song ñi nga xamante ni ñoo ànd ma Macky Sall ba pare di liggéeyal seen bopp journaliste yi laaj ko na ko yow tuumaloon nga fi Aminata Touré ne boppam lay liggéeyal ba mu wax te ba fan la mujj Baara Ndiaye na ba léegi nii gisuguma lenn journal bi du l'Observateur xëy na ci contrat ak li Senelec ak luqi njuur ak tàppale yi nga xam ne maanaam moo si nekk négociation yi commencé waat na enquête yéen a kaay xëy ci couvre-feu bi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci réew mi jamono ji agression yi ma ngi mel ni tulleeg màlle yéen a gi de la sa mu ñu xamal ñu lu toll si ñeenti junni ci ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne dañoo bloqué wu diiwaanu Mauritanie jafe-jafe yu métte métti la ñuy dund ba tey ci biir yéen gi ñu fekk fa docteur Aline Badara Kane vétérinaire la wax ne attention ci lu jëm ci xari tabaski yi ndax xar yi mën naa yokk jàngoroy coronavirus ndax ca Chine am na koo xam ne dafa amee woon coronavirus waaye dañoo gis ne muus mi mu yoroon ci kër gi sax muus mi dafa am coronavirus moo tax nee na askanu Sénégal nañu moytu xaru tabaski yi ndax xar yi mën naa yokk jàngoro ji stade yéene kaay mu xëy di ñu xamal lan ñu FC Barcelone tey jii war naa football ak Espagnol de Barcelone maanaam derby dëggantaan la waaye nag ñoom Messi tey jii gagné kese lañ mën a def yéene kaay gi di stade xëy ni ci Sadio Mané ak lan moo tax mu bokk ci meilleur joueur yi maanaam ñett ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci Premier League ci saison ren bi